jërëjëf euh, jaajëf Khadija euh, jërë ngeen jëf euh, ami téléspectateur de la télévision Futur Média kan mooy réalisé Madické waaw kay Pape Moussa ñu ngi leen di kontaane ba Ibou Diouf clim yi taal leen ko wala ngeen woo Cheikh mu taal clim yi ah fii du boulangerie di leen ñu dimbali ci clim yi acca yéen a ngi seen émission sed Sénégal kontaan bu baax ah si Khadim ñu ngi lay kontaane baax Ibou Diouf yow tamit ak Boy Estage yow tamit Ali Aliou Aliou yow tamit ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a na ngeen def ak coono maa fi gëj xam nga demay jékki-jékki dem tukki yenn saa yi ma jékki-jékki toog kër ga par yenn saa yi nga ñëw fii euh, euh, euh, am fi ay am fi ay problème daal demaat ñibbi kër ga yooyu yëpp dafay am ci li nga xam ni moom mooy plateau yi nañ ko sant yàlla rek sant yàlla en tout cas di bëgg ci yéen bu baax di sawar di ñëw di àndaat ak yéen ci seen émission seetu Sénégal Diaw ñu ngi lay kontaane an ah, dinañ la ko defaral orienté leen ko ko mu ñëw ci moom orienté lii Cheikh Cheikh bàyyil di xaar émission bi commence ñu lay wax kaay taal ngay taal importance Cheikh mënuñu ko am ñun yow nga am ko importance moom da koo bëgg moom da koy wuti. te nii la yàlla bindee moom impo eh, waaw Cheikh Cheikh il faut am ñu ne ci kaw. waaw devant la scène. am ñu ne ci digg bi <laughs> am ñu ne ci suuf. Cheikh il faut am ñuy jouer ay acteurs devant la scène et derrière la scène. am ñuy seetaan ay téléspectateurs <laughs> ah Cheikh yow tamit lépp nga bëgg ko nekk technicien. <laughs> importance. directeur buzz. <laughs> moom xam naa moo tax yàlla joxalale ko nii waaye bu ko joxoon puissance bi parce que xoolal yëpp ñuy def yëpp. dama xam nga tànki Cheikh ban point ci lay sol. <laughs> yu rose yooyu xanaa du ñu fi tegoon moo ko moom de Cheikh day yegg na 49 de. ci àddina <laughs> maa ngi lay nuyu Aba di nuyu mbokk téléspectateurs yi di nuyu nekkatul influenceur affaire à suivre ci kanam lay doon ñu waxtaane ko mais mbégte la saa su ne ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di euh, seetu bi Aba moom du xale bu yem xam nga lépp rek loo xam ne dafa laal internet wala laal ay wax yi sew yooyu moom da ko ciy gis moom moom daf ciy dugg tàq ci ripp kay tos ñu ngi lay kontaane waaw Fall maa ngi lay nuyu di la fay. di kontaan yow bu baax di kontaan ci bu baax di nuyu tous tous mes collègues animateurs. aussi waaw tout parce que non nekkatuma influenceur. parce que influenceur dafa am lu ñu leen waxal 2023 bi dañuy faatu yàllaahu. man moom fi toll nii je suis animateur comme Abba. Euh, président Youssou Ndour moo ma ne bàyyi lépp loo xamante ni influenceur la nga concentré wu ci li nga xamante ni moo di animation moo tax je suis à 100 pour cent mais du mhm, ñame dee moom. mais influenceur bi nan ma xaar ba ci kanam rek. man nag gis nga réew mi sëñ ah, jaw bu ñu génnee wax lu la te li ñu wax yëpp dara amu ci lu ñu wax du am waaw mais ñoom lu ñu wax du am lu ñu wax du am <laughs> ñu toogaat suba naan influenceurs yi di xaw ma dinañ rayanteeg dinañ jamanteeg la waxee woon yow tamit dinañ def ba demi xam nga jaw ak dañuy dóor dañuy dóor ko naan pare jaw ki ma ko wax kilifa la te dafa am yu ma yàgg wax may dund non non pas gis may dund yooyu sangun waay jox na ma ay sangat ba tàyyi yóbbu ma ay célébé yoon xam nga manqueel ma waay waay manqueel ma demal ci célébé yoon bi jouru guddi àjjuma alxamis maam bul def sax dungu mais amal rek benn benn kii boo bàyyi sa yaram benn pièce benn pièce boo bàyyi sa yaram <laughs> bàyyil ba ñeenti nit jugéendoo ci célébé yoon yi ba nga xam ni ñoom ñëpp a ngi lay waaj a seen te seen aguñ la te kuy témoigné loolu <laughs> ñeenti nit ju dajee doo ku ne jugee fenn di ma ëytuloo ay nit moom moom xoola ma ëytu ñooñu moytul diw tey sa soxna boo demee dina togg xam ne dama bëgg yàpp soos. waaw sa jabar boo demee dina togg soos. toggee soos nga woo ma mu ma rek dugg ci waañ bi rek fekk mu ngi togg soos lan ma woo ko allo soos bu ci lekk bul lekk keroog de sama gars yi jëndal mburoog soow keroog sama laa leen wax bi match bi commencé ñenn ñi naan ay man leen wóor na yàlla yéen ñi fi toog ñëpp mun naa leen seetal mm. ki fi toog ma ni ko am na papier booy préparé génne sax ku nekk am nga papier booy préparé <laughs> ne ko say mbir bu commencé bu ko bu ko di siiwal ci kaw bu dee siiw rek day yàqu fii ñëpp ay siiwal seen i mbir ndax looy waajal am na koo ci war a waxtaanal. kilifa gu mag gooy jokkalanteel fan yi waaw dina la jox bopp. dina la jox bopp te yow te yow di ci siggi. di nga ci siggi kese. te sax góor nga wax ak kilifa koy àndal. waaw mu lay bëgg a wor. waaw yow dafa mel ni yow. xale jigéen ñi gën a nekk sa xar xale bu góor bàyyil di gaaw a joxe confiance yaa ngi dégg bàyyil di gaaw a joxe confiance parce dañ lay wor yaa ngi dégg am problème lii rek la lay wax lii rek la lay wax eh. ay lii la la bal fu ngeen ko soxla. Ah. ci mbaal yi. ma yaakaar day dugg mën nañu waa baax na nañ dem. xale yi jox ko bopp gëm ko nag dem par parier ak lu ne ñiy teg ci ay millions. ñu jàpp Sénégal dóor ko dóor dóor dóor yi métti. la wax fa ngeen yem de. Ah. Ah. yegg ñu demi final ñu toogee. huitième ñu waaw ba pare ñun ni ñu toogee la. demi final divisé par deux. waaw ñun dañ toogee huitième ba nopp ñu ñu. ñu waaw ñu mbugal mu tar duma ñu. bilaay mbugal mu koy woo wuyul ah, moo man veille bi man fa fàtte naa ko moom ah moo la woo ma woo veille bi leerlu allo waa Babacar xam nga nit ku may woowee Babacar man kooku <laughs> xam nga rek moom séq ñu kaf <laughs> waaw c'est sérieux waa kookal la Babacar ma ne ko waa sëñ bi ñu ñuy siyaar de ah xanaa de sama woote wi tey dina la bett moom ma ne ko waaw man day maa la faral di woo de nekkaan ci ay tolof tolof euh, yooyu tey nag moom maa la woo euh, xam naa ni nga mel ci équipe bi te mm-hmm. sax moom doo équipe ci l'équipe bi oh, am na sax ay mas xamul sax football ni nga mel ci l'équipe ak ci sóori ak oh. <laughs> moo tax rek ma ni xam naa ni heure bii euh, sa xel mi dalul ma bugg ko dalal rek. bëgg naa xamal ni. <laughs> incha allah. kooku la rey gën a néew. demi-finale. <laughs> rek yow it nga génn def annonce. <laughs> ma wax ko ñëpp. <laughs> yow. moo tax nga amee déception. ma wax ko ñëpp ah, déggoo ma naan damaa ñëw huitième de finale bi après damay dem seetaani kat. waaw déggoo leen ñuy ne la mun na laa bàyyi rek nga toog. yooyu non kay woo wuyu ba léegi wuyu wuyoo dina xam ni maa réew. nañu ànd def délégation fépp. bu wuyoo dina wuyu ku réew. <laughs> nañ ko fekk këram dina dégg tur yaayam bu ko ni di nga ko nuyu yaayam. <laughs> Eh, ay waay ay waay ay si jërëjëf confiance confiance a tax ma woote. kaay leen ñu matine prononcé. <laughs> waaw. tos. a attendre. bi ñu dugg see ci matine bi. mais xaar ñu ñëpp ñu commencé ba tey matine bi commencé guñ ko. li loolu <laughs> sama àdduna fàttaliku ma fu ma ci leen benn affaire yow mu échec xanaa benn jour benn jour ca Fun City <laughs> ñu ñu org kii ah, dafa waroon fekk ki heure bi dafa waroon fekk loog jaar ne nga jaar man ma jaar ne <laughs> ngeen maa def sama événement Fun ma tuddee ko waale Pape Diouf parrain yi waali la ak te boobu ñoom ñaar du laale ma doon doon dajale pour ñu du laale daa tax boobu daaw ñu laale boobu lañ gisantee ñoom ñaar ci aéroport ba dawanteeg daal di kontanteeg yooyu après ku nekk daal di wan sa ginnaaw euh, kii daal di mat temps boobu la ma ma tuddee leen ko ñoom ñaar l'homme téeméer <laughs> ne ma faal ne ma lii nag lii euh, histoire bi du yegg il faut il faut ñëpp laaj ko. foog Sénégal yëpp envoyé ma SMS internet yeeg ñëpp ne ma Aba lan la ah ma wax ko ah, échec samedi la ma mës daal ci sama carrière yëpp samedi bi échec la échec la ah, échec la waaw même PNG la ñi fi nekkoon ñun la de ñun <laughs> di xaar mu commencé barki yàlla échec la de ba ñun la après ñoo mujj ma yónni lom fi mu taxaw yónni kee ne ku la romb rek yéen wala <laughs> ñoom lay xaar pour commencé mais loolu méttiwul li ma lop defoon bu ma ko nettalee ngeen xam ne li yemeen eh, gars leen waaye laajte am na lu war a xew fii ci biir cosaan euh, li ñu daloon samedi ñoom yàlla bu mu leen dal euh, ay reggae man lañ mbokk mi pii waaw ay reggae man mooy am fii sa samedi au cosaan ñoo woote samedi ban bi le 10 mbokk mi pii ok le 10 ah. <laughs> mu bokk kook ñu war a ñu war a ñu ñun ñëpp dem wuy ji teeru bi laa ah, ah, te dañu war dem fan dañuy dem Jurbel ah bu jugee Jurbel ñëw fii mbokk mi pii il ñu jaar fii nag ah, faut ñu jaar ci mbokk mi pii eh, kii mbokk mi pii eh, ñu dem xooli eh, bande annonce bi te ñëwaat léegi léegi fii mbokk mi pii sa samedi au cosaan rage ana rage maa di ayca ma man ñàkkul ma ko Mbokk mi pi vous présente la soirée de fin d'année. Oui, ce sera pour le 10 décembre au Chosa Night Club. Ana ñi namoon spectacle live band avec des invités de surprise. Mbokk mi pi ne da ngeen ma namoon maa leen raw ñëw leen découvrir répertoire bu bees bu Mbokk mi pi en live le 10 décembre. sama xol de bokk tijjee yaa si fees. Entrée unique 5000 réservez dès maintenant au 77 614 95 39 ou au 77 141 51 04 artistes invités El Jazz Idrissa mbokk mi pi au meilleur de sa forme andi bu bees ñu reggae def world music le 10 décembre à partir de Mimipi vous présente la soirée de fin d'année oui ce sera pour le décembre au Chosa Night Club ana ñi spectacle live band avec des invités de surprise mbokk ne da ngeen ma namoon maa leen raw ñëw leen découvrir répertoire bu bees bu mbokk Mimipi en live le 10 décembre sama xol de Rentrée unique 5000, réservée dès maintenant au 77 614 95 39 ou au 77 141 51 04. Artistes invités, El Jazz, Idrissa Diop, Souleymane Faye, Tampi et d'autres surprises. Mbokk mi au meilleur de sa forme, andi style bu bees, ñu reggae, def world music. Ce sera pour le à partir de 23h. aje jaajëf man euh, damaa bëgg xam kan mooy réaliser euh, tey émission bi loolu rek la bëgg a xam euh, après ma soog ko wax li ma koy waaj a wax ndax xam naa ni kii du El Hadj du ma Cissé et tamit kii du Papa Samba parce que ñoom ñëpp xam naa seen ay voix waaw waaw waaw ñoom ñëpp xam naa seen ay voix dama bëgg xam rek kii réaliser kan la ma doog ko wax li nga xam ni moom laa koy wax foog naa ni gis ngeen li nga xam ni mooy xew sa samedi fii au Cosaan. waa mbokk mi pii mbokk mu nekk histoire reggae donc je pense que kooku dama ko jox rang sama doom ci boobu mu wax si ma gis reggae man bu sol grand boubou jaajëf waay xam ne kii dafa boole euh, culture reggae ak culture ah, Sénégal dëgg la kon képp kuy sénégalais rek war nga mën a ñëw teew ci bis bi maa la wax jéem a découvrir li nga xamante ne moo di reggae parce que man public reggae dama leen a fan trop mhm. waaw parce que foofu moom yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na. am na soirée am na soirée bu emoon ca stade euh, indépendance. fa Gambia. waaw. benn rageman jamaïcain bu mag moo ñëwoon foofu. déedéet. waaw uh-huh. policiers yi lañ joxoon sécurité bi ci porte beeg ci biir uh-huh. stade beeg yooyu. Uh-huh. waaw mais ay rageman ñoo wuy jaay lal seen table. ay waay Samba. boîte bi yëpp ay table lañ ko lal. ay waay. non non ay jaay da ngeen ñëw jënd ñu kii. sa bu la neex ah dañ ko doon jaay wala. walaay walaay walaay nii sama lay seetaan nga wax sama xel day dem ci Pinocchio naka jekk bu la sa bakkan bi si na fee. alkaat yi taxaw. table bi nekk tos tos loolu nga toos bi doon ah, eh, fekk naa man fan fekk naa nu jàpp tuxkat man kuy tux dañ koo jàpp jàpp nañ ko moom waxuma rek man yëpp tux de kii ah. tuxkat la dañ koo jàpp yóbbu ko police ci weeru ko gi fekk ko benn bu ndaw lañ ko fekk fekkal bu ñu yeggee xam nga procureur bi mën na yëpp jël affaire bi garaawal ko mhm. association de malfaiteurs. maa la wax jàpp Ibou Diouf lan jàpp Ibou Diouf. ak benn ficelle séeri nabu ak benn ak benn ficelle. bu sew. Ibou ne woon pare rek procureur taxaw. jël euh, kii bi monsieur monsieur Ibou Diouf. <laughs> association de malfaiteurs. trouble à l'ordre trouble à l'ordre public. faute vendre. faux saabur eñ. marihuana Ibu daa jug yuuxu Ibu jug ñu ko hey hey ah, procureur yow ëppal nga ah. <laughs> benn bu ndaw bi ma ne su ma ndogoo pare tuux ko nga bëgg ko yóbbu fii nga xam laal sama un mois ma tëdd ko tëj. <laughs> <laughs> ma ne sama nijaay ba léegi moom xamagul ñaata lañ ko war a tëj ba loolay problème la. daa ma ne mosuma expliqué loolu mosuma expliqué loolu man ramasse man <laughs> maa yoru kaa daante maa tooñ ma woo sama toos ne ko kaay jàppalam dañ maa ramasse mu ñëw yow doo négocier sa jarbaatu tooñ wax dëgg di yuux commissaire bi déedéet ah, kii mineur la xale bu ndaw ngeen koy romance yàq ay jàngam dafa war a jàngi suba di yuuxu mer xam nga xam nga xam nga xam nga dafa am ay dafa am ay nit ñoo xam ni suñu mer meree dañuy dañuy génn cigarette rek taal toog mooy ñooñu nga xam dañuy mer rek ndekete waaw ndekete sama nijaay yoru woon jur boobu fi seelu yamba bi mu desaloon dem moom la dencoon ci poche bi ci biir commissariat bi bu yuuxu daa yuuxu commissaire par rek taal xëcc rek ëf bi mu ëffee saxaar saa ngi jolli am na lu des si gémmiñ gi oh. mais moom bi ko xet duggee xam na ni tal na yàmbaay ci biir commissariat <laughs> mu naan commissaire bi <laughs> di ko laaj saxaar si nii law ay te loolu eh, bokk na eh, ci eh, ah, maa ngi nuyu tos jaw nga toog ñu nuyoo tamit nuyu ko mais bu bu yëf yi neex neex ba ngeen fàtte ni premier janvier. <laughs> bu non non non man ak kii moom considéré wuñ ci ñu nekk ci ay télé moom ñun moom lu neex wax moom ci ay télé. Ah, ñun moom télé moom baal nañ ñu yëpp moom. <laughs> Euh, bu leen fàtte ni premier Sénéra baalu leen lépp bu leen ankay ah, Sénéra baal nañ yëpp <laughs> Sénéra comme da baal Youssou Ngone ak ay invité. waaw dinañu dinañu baal léegi euh, léegi fi toll nii damaa bëgg ñu fàttaliku premier janvier Toch. premier janvier kenn demul ca Dakar Arena. maa la wax li Youssou nee na nit ñi ni ñu sonnee woon. Oh, Abba la la daloon lay bañ mu dalaat la. balaa ngi ci ñëwaat bàyyi fàttaliku bi ndax du man kese. Abba ñëwaat ci tuuti yow tam. am na ñoo xam ne bi ñuy dugg la Youssou naan merci beaucoup. <laughs> kon yow am na ñoo tane. te Youssou bi mu génnee. aussi. taxawaat na ci hall bi. maa la wax lu mat 30 minutes. parce que am na ñu yor seen billet. ñu ko koy wan naan ko yu suñuy biyee ngi nii mu ñëw dugg mu joué woon leen mu ambiance ñoom ah déedéet kee foofu ci ël bi ayo loolu arrangé woon na la kat macha allah maanaam boo gis wërsëgu waay la nga gisanteeg moom ma moom ngeen échangeante ñu échange échange bu gàtt mu ko tos góorgóorlul ndeysaan xam nañu nelawuma xam nañu ma jooy rek di jooy rek xam na ñëpp de ma loo jooy ma laan Ah. ba léegi wax ma kenn parce que surprise la boo xamante ni màgg na màgg ah. du ma ko fàtte ngeen a law pour mun ko gëm fii laa ko njëkk a waxee léegi nag premier janvier bi mu ngi dem ci Esplanade te musée des civilisations noires yaakaar naa ni esplanade boobu mën na ko bañ a doy. ba mu mën cee yokk ci esplanade bi nekk ca grand théâtre ba. yokk ci autoroute bi ak terre bi. Ah, maa la wax li ndaw lu rëy. fi mu ko fi ko def moo am solo. ndax hmm. dañuy mën a jël terre bi ñëw ñu jógee banlieue. dañuy hmm. mën a ñëw. Hmm. ñu nekk fii la taxi ñëw. c'est un communicateur Ndiaga Ndiaye yeeg. c'est un ambassadeur ñëpp dañuy ñëw. embouteillage dootul am ndax bële 5 kilomètres de embouteillage la woon. li ko dalee Tëngéej. 7 déggal kook naa maa ngi wàññi wërsëg bi 7 ba Dakar Arena Sénégal buy football sax du mel noonu. léegi nag xam nga man lii bu amee. Mhm. man ñan laa ci ñee. waaw pas parce que man dama soxor wala dara. Mhm. mais damay ñee sponsor yi nga xam ni. Mhm. ñooy sponsorisé. Oh. parce que li ñuy feeñ day bari. day am journalu Grand Bal. waaw am midi midi plus ak Pape Cheikh. waaw am seetu Sénégal ak ñun ñi ñëpp suñu équipe. waaw waxatuma ak à la rajo. ak nga xam ne mooy journal yi am ak 13 Oh. journal 19 <laughs> heures. journal 20 ah, heures journaliste toog fii souhaité. te loolu joyeux anniversaire journaliste mënul toog fii souhaité wax ay partenaire am <laughs> ah, wax bokkul ak affiche ya ca mi. ah bokkul ak les réseaux sociaux. Ah, Snapchat groupe Futur Média. TikTok groupe Futur Média. Mhm. Instagram groupe Futur Média. Mhm. Facebook ah. groupe Futur Média. SSP ñëw. Ah, GFM ñëw. waxal ñuy dëgg IGFM ñëw. waxal ñuy dëgg. te ñooñu benn yoon lañuy fay benn yoon ngay fay. benn yoon ngay fay loolu yëpp am ci. bu ñu dem ba ci biir gars yi naan da ngeen ñëw ndax waxoo leen ñu woon lii. ñoom miin nañ ko benn yoon lañuy fay ñi ci jiitu. miin nañ ko xanaa ñi war a ñëw dabe. moo temps yi temps Ibrahima Dieng la Dieng. <laughs> Dieng boo demee di wax ak yow. barki yónnee da lay yónni ci ñoom Amina temps yi temps moom la da lay yónni ci ñoom Amina demal seeti Mohamed demal seeti Sixé xam na ñii ñëw ah ñii ñëw ñëpp ah. ak tonton Jean xoolal fan yi rek ñu mu doon kii waaye fan yi daa ah. changé doxalin mu ne ma ah, man de benn bés rek laa am <laughs> ah tonton Jean mu ne ma man ñu fi yusu rek ma ñor <laughs> le dama am xew mën na ko waa moom mooy seen avant première. barki yaa dëgg yaa ah, dëgg la gàcce nga laa ma grand théâtre lay xewee waaye am na leneen loo xam ne tamit euh, grand théâtre lay xewee 30 euh, décembre fiesta xale yi. ah wuy wax nga dëgg yow xale yee xewle. ñu def seen robe princesse. ñëwaguma ci événement le premier bi de ca kanam laa ci ñëw. dama ci doon wax ni rek dama ci doon wax ni rek waaw. dañ ah, nuyoo bi maa ngi ci fiesta xale yi nii kii réalisé ba tey moom ngay kii nañ dem ci fiesta xale yi <laughs> fiesta xale yi euh, euh, kii la 30 bii lay am. effectivement euh, ca grand théâtre ñu war a sol sunu ay robe. la fa war a xew lépp bari.